وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokk ñi ngi leen ziyaar bu baax a baax di leen masaw si tarma programme bi incha allah di fàttali tey ñetti programme yi fii am mooy les mélodies du Coran ak li nga xam ne moom mooy hors concours ak bi si mujj bi nga xamante ne moom mooy majazat incha allah comme niñ ko daan defee rek les mélodies du Coran jotoon nañ def présélection bi nga xamante ne foofu la ñu invité woon ñiy jàng di def seen vidéo après bi ñu ko envoyé ñu choisir ñi nga xamante ñoom ñoo ñoom ñoo dem quart de finale léegi ñi ñi nga xamante ne ñoom ñoo demoon quart final jot nañ jàng léegi incha allahu am na ñoo xam ne ñoom ñoo dem li nga xamante moom mooy demi final di leen fàttali ñi nga xam ne tey ñoom ñoo fi war a jàng kii nga xamante ne moom mooy Cheikh Diop ak ki nga xamante ne moom mooy Mouhamadul Amin Fall ak ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Dieng ak Cheikh mbay ak euh, ki nga xamante ne moom mooy Zeynabou Gueye ak Ousmane Cissé tey ñooñ ñooy candidats yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu war a ñoom ñoo war a jàll si les mélodi du pour ñu jàngal ñu alquran incha allah di fàttali ñi nga xam ne ñoom ñoo toog si côté jury bi kii di al oustaz Saïd Dem ak al oustaz Ousmane Bousso ak ki nga xamante ne moom mooy oustaz Mouhamad Ndiaye incha allah pour ñu fàttali li nga xamante ne rek niñ ko daan defee ki nga xamante ne suñu woowee candidat bi nga xam ne moom moo war a jàng suñ ko woowee day ñëw ba si table bi jël fa aayaat yi nga xam ne moom la war a jàng après jury bi dina ko wax pour mu ubbi aayaat yooyu si kaamil bi incha allah pour ñu bañ a taara dañuy woo ki nga xam ne moom mooy Cheikh Diop fale tafaddal bismillah kon iqra min qawlihi taala bada audu billahi min alshaytan alrajim wa qalat alyahudu wannasara nahnu abnau allah wa ahibbauh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 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير wallahu ala kulli shay'in qadir wa idh qala musa liqawmihi ya qawmi اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم وآتاكم ما من العالمين حسبك بارك الله فيك aywa ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom Cheikh Dieng incha allah dañuy woo candidat bi nga xam ne moom moo stop di Mouhamadul Amin Fall ba dee mu ngi si jotaay bi falee tafaddal hmm. jàngal qawluhu taala baada audu billahi min alshaytani arrajim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 من الضأن اثنين ومن المعز اثنين اشتملت أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم aywa ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom Mouhamadul Amine Fall incha allah dañuy woo ki nga xam ne moom moo si topp di Cheikh Dieng bu dee mu si jotaay bi fale tafaddal اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام رحمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني كهيئة الطير الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين حسبك صدق الله العظيم aywa macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax dañuy woo candidat bi nga xam ne moom moo si topp di Cheikh Mbaye bu dee mu si jotaay bi falee tafaddal bismillah inna fi xalqi samawati wal ard أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ۖ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا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 innaka laa tuxlifu l-miicaad. sadaqallaahu l-aziim. aywa macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom Cheikh Mbaye dañuy woo candidat bi nga xam ne moom moo si topp di Zeynabou Gueye incha allah bu dee mu ngi si jotaay bi na ñëw bismillah. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك ربك سوف نوتيهم أولئك سوف نوتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما sadaqallahu alazim aywa ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom Zeynabou Gueye incha allah dañuy woo candidat bi nga xam ne moom moo si mujj muy Ousmane Cissé bu dee mu si jotaay bi fale tafaddal وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله دعيت ربي عذاب aywa ñu ngi koy jaajëf bu baax moom Ousmane Cissé incha allahu ñii ñoo nekkoon ñi nga xam ne ñoom ñoo waroon jàng tey jii kon dañuy bàyyi kàddu gi ak jury bi incha allah am ay kàddu ñu rotal si ñoo nga xamante ne ñoom ñoo jot a jàng fii bismillah kon mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa baadu ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp seen ak seen sant di ñaan yàlla mu nangul ñu kooru tey gi nangul ñu kooru fan yu ko jiitu fekkee lewoo ñu fan yi des muy fukki fan ak ñett ba fukki fan ak ñaar nangul nu ko incha allahu taala dajaleel nu ko sottil nu ko sunu balance yiw mën na ko yàlla na ko def ñun ñëpp loolu lan soxla yàlla nañu ko am gannaaw boobu ñun ñëpp ñoo bokk teewlu ndoo njàngu sunu jarbaati ak suñu doom yi alhamdulilah muy njàng moo xam ne balaa nga cee génn benn erreur da ngay déglu bu baax a baax a baax a baax wuuteeg xale yi nga xam ne bu ñu tàmbalee rek jarul sax ngay bàyyi xel lépp lu ñu wax rek njuumte la kon loolu alhamdulilah dañ koy sant yàlla bu baax a baax a baax euh, waaye comme ni ngeen ko xamee nag Qur'an moom ku ko mën a jàng ci àdduna foo jaar ñu génn la ci benn sew sew wala ñaar lu mu néew néew kenn mënut jàng Qur'an. ba minal jinnati wan naas wala bokk wan naas te amoo ci benn jumte loolu mustaxiil munut nekk ndax nag téere bi waxu yàlla la subhaanahu wa yàlla moo ko wax xam nga ne aqwalu shuara wal udaba ak al fuqaha ak ñu mën a eh, nu mel ni moom ñoom da nga ci génn ay njuumte di ko kii waxatum ak wax joo xam ne yàlla moo ko wax nit bëggu koo répété waat kooku pour nga wax ko comme ni ko sunu borom waxee moom la shakka lu jafe-jafe-jafe la moo tax muy jaral nit ñi ñuy jël seeni om di ko sukk ci kanamu sëriñ yi ñuy jàng ba mën ñu leen di jox ay dijaasa muy firi ne am ngeen digal ci jàngale ji ndax jafe bi mu jafe moom waxu yàlla subhanahu wa taala donte nag yàlla moo ko yombal tam nga ne ah contraire de am na alquran dafa jafe ba pare yàlla moo ko yombal ñu ne déedéet liñ ci jublu mooy ku góorgóorlu pour mën ko rek da ko mën waaye nag góor góorlu boobu coono boobu loolu moo moo moo laaj mooy lan ak lan ngay daj noonu lañ koy déggee bu ko defee njàngu xale yi alhamdulillah jamila qiraatuhum jamila jiddan waaye nag du ñàkk ay gendiku man am na lu ma gendiku sama moroom yi am na lu ñu gendiku lu ma gën a gendiku mooy ñaar yii ma jàkkaar lool xam ngeen ne tajwid dafa bëri ay mabaxis mu am ci ñaari mabaxas yoo xam ne huma asaabu mabaxisi ilmi tajwid wa huma mabxasu almaxaarij wa mabxasu alsifaat bi ma mujjee wax gën jafe bu jiitu bi ndax mën nga ko maîtriser sax mi abil mi a mën ko lool liir ci lu tollook juróom fukki téere ba maîtriser ko mi abil mi a mais boo tàmbalee tatbiq rek njuum tey commencé feeñ ndax waxu yàlla la subhanahu wa taala euh, bu ko defee li ma seetlu li ci jiitu mooy dafa am benn xaraf ci xuruuf yi nga xamee ne moom lañuy tuddee xuruuful wasat aw xuruuful bayniya aw xuruuful liin ci biir ilmu sifaat boo xam ne dañ koy bañ a jox li mu yellool te mooy def jàng ko mu nekk digg mu diggu doomu ndax dafa am lu ñuy tuddee xurufu raxwu am lu ñuy tuddee xurufu shidda ibnul jazari lan la wax wa bayna raxwin rixwin ba tey wa bayna rixwin wa shadidi lin omar mu ne nekk na diggante xaraf yi nga xam ne boo koy jàng sa sa baat dafa war a tëju ngelaw wi bañ a génn bu ko ba bi xaraf bi tëju ak xaraf yi nga xam ne soo koy jàng sa euh, sowut dafay ubbeeku wa bittaali xarf bi génn bi suhula diggante tëju geeg tijjeeku gi am na lu ñuy tudde at at tawassut al liin xarf boo xam ne du tëju du tijjeeku kon muskila bi mooy nan nga koy jànge mooy da nga koy tatbiq ci cheikh bi ba mu ne la nii la dama gis ñu bari dañuy tëj xarfu ayn te xarfu wasat la liin na omar juróomi araf yi tëjuwuñu comme daal add comme kaaf ak xam nga dañoo tëju baat bi dawul doot dafa tijjeeku ad za miim am gis nga am mu ngi daw bale ak ak gis nga tëj yii dañoo tëju yii daw mu am juróom yoo xam ne foofu du tëju du daw ah loolu de problème la bu ko defee ni nga koy tatbiqe surtout bu sukkoonee ah ah waaye sañoo ne ah ñu bari fii lu mat ñaari nit bu ñu yeggee ci aynu gu sukkoon dañuy wax a ah an abuda loolu dañ koy tere sañoo ko dawalit an abuda déedéet an abuda mu ngi noonu loolu mooy wasat loolu mooy liin gi kooku nag tatbiq moo la koy may ñu bàyyi xel ne xarfu ayn ak yi ci topp ayn miim euh, nuun laam yooyu yëpp noonu lañ koy kiiwee waaye nag il faut tatbiq rek moo la koy may ndax chaîne bi noonu lay continuer ba ci yàlla subhanahu wa mi nga xam ne moo moo wàccee alquranul karim beneen bi mooy li ñu tuddee taxliitu at turuq wala nga tuddee ko ba tel ba tey xaltu turuq imaam yi toog sama wet xam nañ li may li may wax ñoom ñi doon jàng ñëpp ñu ci bari ñu ngi jël tariqu shatibiya waaye dañuy dem ba ci biir rawatina mbokk mu ñuy wax ki sant jeng dama xamatut waaye daal jeng jeng la sant dafay lu du jeng jaañ waa jaañ jeng la sant jeng jeng am na jaañ wala jeng ah jeng la ah jaañ waaw jaañ la waaw wax nga dëgg waaw dañoo juum ci sant wax jeng dafa xaltu ñaari tariq yi daanaka ci mujj njàngam xam nga ne maddu munfasil bu fekkee da koy jàng di ko jànge euh, tariqu shatibiya nga xam ne moo gën a yomb xam nga ne ak ash bi fukki yoon ak ñeent la am xoolal xam nga ne fukki yoon ak ñeent bokkul ak junni yoon ibnul jazari am mil bu ko defee moo gën a yomb fuuf boo ci jàng maddu mun fasil juróomi masque lañ la may mu tolloog ñaari alif ak genn wàll wala ñeenti masque mu tollook ñaari alif donc am déet lu ci mel ni qu anfusakum am nga juróom wala ñeent ñeenti alif mu tollook ñaari euh, ñaari alif mu tolloog ñeenti masque qu anfusakum jeex na waaye sañoo ne qu anfusakum kooku ca tayiba nga ko sañee moom nag dafa jël madd munfasil léeg-léeg mu guddal leen léeg mu xasru leen ci benn riwaaya ci benn tariq loolu dañ koy tere soo ko defee rek de problème day daal juddu kon tariq bi nga xës a jël yow de am nga sens bu fekkee da nga ne man di xafsu laa jàng te waxoo yoon waaye ba tey boo tàmbalee rek am nga problème même boo ne wut tariqu Shaatibi laa jàng wala tariqu Tayyiba soo tàmbalee rek am nga problème soo xësee xasru ñi corriger jàpp ne ci Tayyiba nga ne soo tawassutee du baax soo waxut dara waaye nga tàmbali tawassut soo xasroo du baax kon loolu laa ne woon ñu bàyyi ko xel insha allahu taala am na yeneen xam naa suñu ndijaay sa Oustaz du ñàkk mu leeral ko yal na yàlla mën loonu alquran ndax ñun ñépp moom lañ bëgg mën na ko yomb na ko yàlla na nu ko defal bu nu ko defalee mu nangul nu ko wasalaatu wasalaam ala rasulillah Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah xam naa man tey damay gàttal lool ndax euh, waxtu wi dem na te li nga xam ne Mouhamed Ndiaye loolu la wax ñun tamit lu ëpp ci ñun loolu lañu ñu nemmeeku xale yi euh, ñu jàng tey malgré ñu ngi fi ñu bëgg a jeexale waaye seen jàng gën naa gën naa rafet gën naa jekk gën naa am wala gën naa leer lu dul rek li nga xamee ne euh, nit ki jamono buy jàng rek lu mu defoon ci lu rafet rek bu ñëwaatee ne gën a dolli mu gën a rafet loolu rek lañ ci nemmeeku yu ndaw ndaw rek lañu gis ne am nañ ci jafe-jafe loolu nag bu ñu dellusiwaatee beneen yoon defaraat rek incha allah dana gën a baax kon daal tey daanaka suñu commenté du ju gudd eh, ahkaamu tajwid jamono bu nekk li kii wax rek def ci nit ki def ci gën a tàggatu am na am na xuruf yoo xam ne léego-léeg dafay jafeñ ci làmmiñu nit ki waaye bu koy tàggatu rek bu yàggee dafay ñëw muy ci ci ci ci maxraj ji ak ci sifaat yi yépp benn bu ci nekk rek su ci gën a tàggatu bu yàggee dina ñëw ki jàng war a tamit na gën a bàyyi xel ima la suxra warash bokk ci ñiy def ima waaye daanaka mën nga ne duy def ima la kubra imatul du koy def lu dul benn baat la ñu nemmeeku ci li ñu xam moo tax su nit kii làmmiñam di dem rek baatam di dem rek moom dafay wàññi imaale gi ci digg la waroon la ñenn di réel moom mu xaaj ko su ko defee loolu ñu ngi koy bàyyiloo xel su loolu ñu ngi gërëm ñëpp taxawaay bi rafet na njàng mi rafet na yéen yàlla barkeel asalaamaaleykum wa rahmatullah aywa incha allah ñu ngi jaajëfal bu baax a baax jury bi si si ay ay mulaaxada yi nga xam ne ñoom lañ jot a nii di ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo doon jàng fii tamit ñu jëlee ko ala aynil intibaar ndax euh, comme ni ko oustaz Ali Ndiaye waxee rek alquran dafa nekk loo xamante ne noo ko mën a jàngee rek dina am ku lay déglu koo xamante ne moo la ko gën a mën dina si génne ay mulaaxada yi nga xamante ne yow di ci jël. ay leçons yu baax a baax incha allah kon lii mooy li nga xam ne moom lañ leen indiloon si les mélodies du Coran wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wa xalaqnaakum azwaajan wa ja'alnaa nawmakum subaatan wa ja'alnaa al-layla libaasan wa ja'alnaa